billahi min shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wala hawla wala quwwata illa billah allah aliyan azim ginnaaw buñ sante yàlla jul ci nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp képp koo xam ne mi ngi déglu sit bi di wax ne comme ni ngeen ko waxee dégg benn xibaar yi ñëpp ngeen tiit woo ma comme sénégalais laa comme sénégalais yëpp di leen wax ne comme dugaluñ ma man ci wàllu boobu naru ma coon wax waaye comme wax ngeen ma ñëpp li ma xëy di ma woo téléphone Cheikh Bocar maane waaw équipe bi di loo ci xam Cheikh Bocar Mané équipe bi wax ci loolu moo tax interview bi ma def ko man ku ma xam temps yi gëñ naa ci ay média waaye di wax ne suñ mbokk yooyu nga xam ne ay saltige lañ di suñ mbokk ci wàllu aada génn wax am ku ci génn wax ne gisul coupe bi ci dëkk bi digale ay sarax li may gën a wax mooy niñ fexe ñu def sarax yooyu parce que waaye man sarax bi ma ci def gis mooy fukki gëlëm ak benn ak benn nag bu weex suñ ko defee lii ma lay wax ah yàlla mën na leen dimbali équipe bi bëri nay xeex équipe bi bëri nañu koy xeex ci baatin équipe bi dañ kaa suul ci baatin ba nga xamante ni lépp luy ndam sax ci wàllu boobu tey mel lu jafe kon nag nañu góor góorgóorlu génnee sarax yi ma leen digal suñ ko defee incha allah dina jàmm man nag gën naa génn si ay média ay appel xëy di am lima may woo fu ne na ma Cheikh male wax ak ci wàll bi dimbali ñu ci coupe bi limay may digal mooy nag wooguñ ma ci wàllum football bi kenn woowu ma ci federation kenn ma ma maandu sama ñam mais waye sénégalais yi ku su nekk jog li ma ne Cheikh Bokar Maale nangam ak nangam wax ko dimbali ñu ci coupe bi dina genn xol li baax ci Sénégal bokk nañ fexé sarax bi ma leen wax ñu def ko suñ ko defé yalla mën na leen dimbali man nak kuma xam-xam ne ci tiaxan ak yenn mbir yi. waaw loolu daal nekkoon na lu ma gis woo nañ ma tey ke sama téléphone damaa xëy ñu may woo suba ba ngoo jot ci wàllu équipe bi moo tax ma fa wax leen lii nañ ko fexe def suñ ko defee yàlla dina mën a dimbali incha allah